teg nuyoo bi nag ci loxol si Amdi mu sëñ Modou Mbenda si Amdi Fall Modou Mbenda it mi ngi santaat mboolem waakat maam Serigne Fall yi ci ànd ak ñu ànd bi ñu ànd ak fas yéene ànd ak ci liggéey sëñ Tuubaa bii ndigal yi na na leen ndigal te ba ñu bëgg a màggal waxoon na leen nañ bale ji te màggali te gàmm ji balewaat bu noppee dellu ci liggéey ba àllarba ji mu joxe ndigal sant Serigne Fall gi tur yàlla bi nag nee na mooy bu ñu war tàmbali liggéey bee tur yàlla yi ak ak liggéey bi ñoo bokk bu ñu ko tàmbali le 2 décembre hmm. ci la ñuy liggéey bi ci la ñuy def tur yàlla bi man hmm. bu murit dem na ko yóbbaale diga laa ngi ci barke Serigne Fall ngir ngeen mën a topp suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall